lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. asalaamualeykum waa Mertes naka ngeen def. yéen a ngi ci jàmm maa ngi leen di nuyu di nuyu góor di nuyu jigéen di nuyu mag ak ndaw ma ne seen siiri bi neex na lool neex na torop torop torop man nag lima am pour wax mooy affaire maram maram a ah, yaa ngi toggoon ceeb de waaye sa ceeb bi yaa ngi ko bugg a xejamal xejamal bi mooy lan yow danga nga nga fekk sa aawoo ak doomam yow ni nga naxee seex ba jot ko noon nga war a naxee xale bi ba jot ko yow lool nga war a noon a def waaye doo ñëw ne di nga jël xale bi forcé ko si yenn defin yoo xam ne pour mu mun koo def su defee xale bi mun naa fippu dellu gannaaw yow am nga noo war a doxalee ak xale bi ba xale bi ñeme la ñeme boo xam ne sax dina mun a fàtte ndeyam mi ko jur ba pan ñaareel ba sa xarit boobu noonu ne mooy sa xarit mooy sa ndey taxawal la ni ndey kooku mutut ndey parce que tey ku am sa doom nga muur ko mu dem sëyi balaa sëyi danga ko digtal lu baax digtal bi mooy lan danga koo won ko soo demee jàppal say goro jàppal say njëkke jàpp sa rakki jëkkër sa mbokki jëkkër yi nga jàpp ñëpp emale leen ñu nekk benn nga nekk jabar yi pour sa waaye doo nekk jabar joo xam ne lan set la ñëw di tasaare déedéet kenn du ko warut koo dikkal doomam suy seyi lu baax nga dikkal sa doom waaye doo ko ne soo demee jëlal lanset di dog di sànni danga ko ne jëlal pusa ñaw boole waaye moom mu naan ñëw kiram naan ko di ko wax pour ñu dépante ji ak xariti go aawoom xariti aawoom loolu tam rafetut moom moo waroon a jël aawo bi taaj ko taaj doomam maram ne aawo bi kii dey saraka ngeen bokka nekk benn ci kër gi yépp wërsëg wujja du dara bokka wërsëg la jàmmane ñooy waaye su ñëwee bugga a indi fitna ci kër gi fitna jàmma du am moo tax ma ne kooku doyut kilifa xaritam maram sa xarit bi doyut kilifa man nag fii suma wax em yal na leen yàlla jàppale lapal leen cat dina dem asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di kontaan te yéen séri yëpp laay déglu ci yéen damay seetaan ba pare ñëw déglu commentaire yi mu neex ba bëgg a dee nag waaw waaye Marème Ndiaye nag moom contre naa ko ndax dafa bugg a yàq kër Cheikh jël ay xaritam di indi foofu ñuy lëmbal ka def lu leen neex te kër gu tranquille lañ la woon kër gu euh, silwise amuñ benn problème mu ñëw indi fa ay wudu jeex di fa def lu ko neex di di di indi ay xaritam ñuy xuloo ka di loolu amu ko woon moom moo bëgg a yàq kër gi gorom nag am na fulla bu mu yàq kër doomam mënuta sëy na dellu ca kër fa nekkoon ma seex di ko fa fekk muy defanteeg moom la muy def ak moom waaye moo gën mu ñëw fii di yàq kër jàmbu li muy def tegu ko ci yoon du benn dëgg du denn yoon su ko defoon càmmiñam du ko neex waaw noonu la loolu laa am sama xalaat lu ma ciy jëg jàpp doomi jàmbur di xas di wax lu la neex yaay ja jox la noppi rek di la xool ngay def di avancer rek defe ne yaa ngi ci ngóor wala yaa ngi dëgg nekku ci benn dëgg ku ko jox dëgg nax nga ko waxoo ko lu am merci beaucoup